fàttali xibaar bi euh, jot ruus euh, di wateek faluk njiitu réew ma ca Gàmbi élection commission électorale indépendante ba daal nay jox ndam li Adama Barrow yéenekaay bi di Jeune Afrique moo ko fésal mbokk sant nañ leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci